comme ni ñu ko waxee euh, sànq euh, coach ci début bi CHAN euh, la ñuy waxtaane daanaka Sénégal ma nga fa di def ay jaloore waaye itam dañoo bëgg a fas yéene qualifié ci huitième de finale incha allah rabbi dinaa ci wax dans le match. Mhm. compétition bi wax hors compétition. Mhm. hors compétition li ma ciy wax lenn la. Mhm. dem nañu CHAN. am na loo xam ne nag. Mm. ci comité exécutif. bu mm. fédération sénégalaise bu football. Mm-hmm. am na kenn euh, euh, parce que foofu. Mm-hmm. sénégalais yi dañu bëgg xam. Mm-hmm. il faut que mu leer. ci maanaam. délégation bi dem. délégation bi dem. bëgg nañu xam maanaam bu ñu ñëwee. ñu ñoom ñu def bilan. d'accord. parce que. Hmm. lu tax maa ngi wax fii parce que xaalis bi mu ngi commencer di génn. Hmm. ci fédération bi. Hmm. ci biir semaine bi rek semaine bi am na ci ñoo xam ne defal nañ leen chèque kon nag. il faut que. ñu xanaa xaalis bi génn dafa bari. ah de en daal ay millions la. ñu ngay joxe nag. Hmm. ñu ngay commencé di joxe. bëgg nañu xam joxe boobu. waaw ñiy bénéficié wu. Hmm. Eh, ndax ñan la te ñooñu est-ce que am nañ ci maanaam droit lan la ñu def ba ñu am loolu parce loolu naa ci ñëw. Hmm. dama doon wax or li nga xam ne moom mooy. Euh, maanaam dem coupe d'Afrique bi parce que nit yi dem dafa bari lool te affaire bi dafa xaw a jaxasoo. Mhm. dirigeants yu bare dem nañu. Mhm. Algérie. waaw ñu bare dem na c'est vrai waaw. naka la de euh, kii euh, pour Chan rek. Mhm. Chan ñu jël fa nombre boobu ñoom ñuy dem man dama jàpp ne que dafa bare. dafa tey xel. léegi bu ñu ñëwee. nañu expliquer le monde du football la famille du football xam ne. xaalis bii nangam parce que xam nga ma koy wax bilan ñoom saa yu ñu def euh, assemblée générale dañuy def dañuy def ñoom dañuy wax ne euh, équipe nationale A c'est vrai ñoom ñoom nangu dañ ko. Mhm. ne nañu état moo koy def état mooy jël lépp en charge. mais ñoom ñooy jël yeneen ñoom ñoo wax loolu. Mhm. ñoom ñooy jël ti seen xaalis. waaw ñoom ñooy gérer yeneen di yeneen catégorie. catégorie waaw kon nee na ñoom ñooy gérer ñooñu. léegi kon léegi nag euh, euh, état deful xaalis ci euh, chan bi seen wax. Mm-hmm. état deful xaalis ci chan bi. Mm-hmm. léegi nag lu tax li nag membre ministère des sports yi. Mm-hmm. bokk ci délégation yi waa ñooñu. luñ fa uti. waa déeg ñooñu kan moo leen di jox per diem. moo jaaxal ñëpp. man de question boobu loolu man loolu laa bëgg laaj. Mhm. comme que nag dañ maa woo ne ma Gomis bàyyi di wax waxu xaalisu fédération <laughs> du ma ko bàyyi. doo ko bàyyi du ko bàyyi. te dañ laa woo di la wax nga bàyyi ko. billaahi hmm? damay tudd tuur de xam nga man. damay ëpp naa déedéet. <laughs> man damay man damay yëngu man damay tudd tuur de ma woo. ne ma Gomis dimbale ñu rek xaalis bi bàyyi di wax wax xaalis fédération. waaw mooy <laughs> tourné comme ni comme ni eh, kii doon wax léegi dégg naa sax ñu naan sax. man sedd nañ ma ci. <laughs> yow jot nga sa wàll. waaw jot naa sama wàll ah waay nga Augustin xam nga Augustin lu geen génn ci xaalis bi xam na laaj leen ndax Augustin ndax ndax Cheikh Gomis bokk na ci waaw ndax man jot naa aca Augustin mu ngi nii Augustin Senghor dinañ ko ko wax billahi noonu kii man jotuma dara ñoom ñoo kii ma man musuma jot xaalis benn xaalis ñoom musuma tey jot waaw léegi nag kon léegi nag man loolu laa bëgg a xam. il faut que ñu ñëw expliquer sénégal yi. ndax yow da ngay bokk léegi xaalis bi xam nga ñu di dem ñëpp. ay dirigeants yi. ku ci nekk da ngay am per diem. per te per diem bi dina dem ay millions lay doon ay millions. léegi fu fu loolu di jógee. loolu voilà c'est ça tey jii. Mhm. ñoom nee nañu da xool da wax bi dafay la dama ne ñoom ñoo ne. Mhm. Euh, état du Sénégal équipe nationale A rek. lay financé la gérer. Mhm. mais yeneen euh, kii yi ñooñu waaw yeneen euh, mooy euh, équipe national locale équipe nationale junior. Mhm. seen kii football féminin ñoom ñëpp dégg nga ñoom fédération ñoom ñoo koy. ñoo leen gérer léegi nag mhm. dans la délégation. bi dem fële. am na ci ay nitu ministère. waa ñooñu. waa ñooñu ñooñu kat mën di fay. ñooñu xaalis boobu kon ne nag. fédération moom mooy fay ñooñu. fay ñooñu ah doy na waar. ci fan lañ ko teg mm-hmm. fan lañ ko teg na leer. Mm-hmm. loolu laa bëgg est-ce que ñooñu ñu ñu yóbbu sax di leen fay tey jii suñu xaalis. Mm-hmm. est que amal nañu équipe bi njëriñ. non doo dégg la ma gis nga ñi fa dem yëpp man dama lay ko man man man ci dégg ay nit yoo xam ne mais leer na ma ne. nag dama demoon. waaye nag gëstu bi ma gëstu di laaj ay nit di nangam. waaye mais loolu liggéey boobu dëgg dëgg nombre boobu jaru ko. jaru ko da jarul. Mhm. loolu mooy indi copinage yu fédération loo xam ne yow boo toogee comité exécutif doo sañ a wax Moustapha donc ne Moustapha hmm. ni ngeen di doxalee baaxul parce que yaa ngi calculer su dara génnee pour yow nga dem voyage ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa jeex na du wax naa fii amoon na koo xam ne da doon kaas ci cinquante millions yi ak deux terrains yi ne bokku ci waaw ci bii ci coupe du monde bi dañ ko cee boole noppi na mu noppi noppi na <laughs> waxatul boobu moo ku ma ci boole war ma <laughs> noonu. mu bi non loolu moo tax gis su may wax fédération ma ne. Hmm. affaire de copinage la affaire de bokk la affaire de ning la même sax gars yi dañ koy xam même sax ñooñu di joxe. Hmm. dañ koy ñoom dañ leen ko xoolal am na ci koo xam ne ma ne mu ne ah diw gomis doo wax diw mu wax. diw de wax. di wax te ñoom ñooy yoole ku ne yoole ñoom ñooy yoole ñoom koy wax. merci merci Cheikh Diagne nag vraiment ku seex doo wax. ku seex ab dànk nooy waxee. non mais attends mi mi mi mi mi loolu man loolu laay wax gars yi dama ne. Hmm. déet bul li ngay wax ci suuf ñeme ko wax ci kaw. kese. da koy ñeme wax ci kaw boo demee toog comité exécutif nga ne leen hey li ngay kaas na nekk loo xam ne pour intérêt ñëpp la hmm. waaye bul kaas pour yow. Hmm, xam na lañ jël hmm. dañoo jël ñëpp ñi nga xam ne demuñu woon ca coupe du monde ba ah. euh, euh, ak ñoo xam ne demoon nañ ca coupe du monde te amuñu te joxuñu leen ci récompenser leen fii <laughs> <laughs> maa maa ko atte nañu weddi maa ko wax noonu la demee loolu laa lay wax dama ne xaalis baa ngi daw xaalis baa ngi daw mu ngi commencé daw hmm. mu ngi commencé daw am na koo xam ne ci biir semaine bi jox nañ ko 15 millions boobu laa bëgg a xam 15 millions yooyu ñu ko jox lu tax. 15 millions boobu génne noonu ci biir ci biir semaine bi acca nañ mu wax 15 15 millions boobu waa léegi ki ñu ko jox kooku lan moo tax lan moo tax ah, dinaa ko xam de. fu mu dem senegal waaw. Hmm. war am 15 millions. fédération am na xaalis ah. ah waaw. dafa bëri mag yi tamit. ah waaw dañuy bañ ma wax ci xaalis bi dinaa ci wax kon nag. loolu moom mooy 8 non doo dégg li ma la hmm. di toog fii. Hmm. gars def fii euh, euh, assemblée générale ñu ne huit milliards yi jeex na. Eh, comme ça. comme ça comme ba lay passé comme bu deux mille dix huit ba. ana xaalis ba. mara ko cee milliards ay nit oh on démb laa toog ba hmm. euh, kii maa toog ak nit. nit koo xam ne xam na bu baax les finances de la fédération sénégalaise de football mu toog ba si àgg mu ne ma hé il faut ngeen laaj Augustin ana xa réellement fan la xaalis 2018 dugg. ku bokk fële 2018 waaw. moom du ko laaj moom. ah non non non non kooku. Hmm. kooku dafa xam fin finance finances. ok dafa xam finance su kii waaw. Ah, luy duggu xam ne ko luy génn xam ne ko. Hmm. audit du am ci kii bi. Hmm. voilà ça non loolu lañ doon wax. loolu lañ passé rek. Euh, waaw dama ne. audit non euh, gis nga. dafa nekk gis nga ñaar xoolal commission des finance dafa nekk benn commission boo xam ne Moussa Ba. da ngay noppi ànd ak gars yi noppi woo nga jóge fa la preuve ki fa nekkoon démissionné na. ah oui hmm. commission des finances waaw. parce que noppiwul. ah waaw parce moom dafa noonu nii la. nii la bëggee mu dem gars yi ne ko ah euh, saa yi euh, indi ko xatal ko mu xam ne xat na mu dem ñoo na. waaw te du bëgg. c'est le président de la ligue de de euh, kii de Diourbel. oui Ablaye Fall il dit que non man nii laa bëggee mu dem. nañ ngeen doxalee affaire bi nii mu dem. lu ñuy def nañ ko def lépp mu leer. ñu ne bëgguñu loolu. waaw ñoom ñu commencé di koy indi ay kii. sax moom mu ne leen ah man de dëgg-dëgg. dem naa sama waaw waaw man nii am na yoo xam ne dama koy yore. Hmm. xaalisu réew mi laay yore de fois. te nag attention il faut que mu leer. loolu moom moo indi loolu loolu moo tax ma ne la foofu ñaar yooyu. Hmm. Euh, ñaar yii kenn du ko laal. Hmm. finance ak marketing. ñaar yi kenn ko laaj. parce que fa la lekkee xaalis. boo fa nekkee euh, kii de man xaw ma sax lu tax démissionné parce que dafa ma ne bu jugee kii bi moom boo ma day day démissionné. kan la ah muy jiite kii waaw ki fa nekk jamono waaw. loolu moo wax de de moo man de xamul tax démissionné bi. te mi ngi toog ah est-ce que du. xamul dara lu fa xew. xamul dara ci commission bi xamu fa dara. xamu fa dara. te moom moo jiite. xamu fa dara. Lamine c'est un type bon moom. très bon très bon. un gars ful la. waaye xam naa ne mënatul nekk foofu mën a mun faa nekk. xam naa day toog nii rek. Mhm. waaye Cheikh Tidiane bëggoon naa nga laajte lenn parce que man wax dëgg yàlla bëgguma wax lu ma xamul te te te vérifié ma ko. xaw ma ba xam c'est possible est-ce que euh, peut-être ñiy seetaan dina am ñu ko ci xam est-ce que Cour des comptes par exemple est-ce que mën na fouiller les comptes de la fédération de football. vraiment mënu parce que euh, euh, euh, maanaam. Mhm. FIFA. waaw loolu yëpp FIFA la. FIFA moo ko mën. FIFA rek moo mën a def loolu. FIFA rek moo mën def loolu. FIFA dem tey nag FIFA mu mën a def loolu. waa FIFA xaalis bi ci moom. waa FIFA waa FIFA ñoo gën a triant ñëpp lool kay moom voilà très bien moom laa lay wax dama ne. doo dégg wala loolu amoon bu yow Cheikh Cheikh Yérim bi ngay wax nii. Mhm. yi mu xam ci football bi naal man j'aurais préféré mu bàyyi lii. lii moom mu ba moom ci football bi il était au maa ko wax Cheikh Yérim moom mu na wax ci kii. gis na gars yi ni ñuy def waaw gis na mu ngi nii acca mu ngi nii acca na ñëw maa ngi moom ñoo ne ko ca hôtel ba Cheikh Yérim Seck. mu fekke lépp xam na. doon ci looloo gën a. moom na bind moom na bind na wax. mënoon na leen cee boole. waaw mënoon na cee boole ci livre am nag. bu ko ci booleen rek affaire ba ah, kii gi affaire ba pëccëxoo. kon noonu day jël. <laughs> mais mais les journalistes sénégalais mën nañ def leen. Euh, bu ñu demee ci une compétition comme ça. Mhm. Euh, il y a la couverture de la compétition sportive. Mhm. moo leen fay yóbbu moo leen mobiliser généralement. Mhm. mais man je me dis que quelque part surtout les journalistes de la presse écrite presse écrite je crois que war nañu yegg foo xam ne su ma gisee su ma ko waxee aussi fédération bi jël ay dispositions suñu suñu demee di di di enquêter sur sur la fédération pendant cette compétition là c'est possible. bien xool comment est-ce qu'ils ñoo fa ñëw lan lañ leen jox sur quel comme ni nga wax sànq. Euh, génne nañ 15 millions sur quel critère lañ ko génne moom laa lay wax. mais loolu liggéeyu journaliste mais mais mais aussi waaw liggéeyu journaliste su fekkee ne les organes de contrôle si j'ai bien compris mënuñu fouiller la fédération à cause de la FIFA mais journaliste yi ñoom mën nañu enquêter. mais c'est vrai Moustapha yow waaw li nga wax loolu moom mooy ñun suñu rôle. mais loolu mooy suñu rôle man loolu laay wax dama ne. loolu la ñun nañu dem xool. comme par exemple nga wax nii. xaalis bu génn ñu xam lan moo tax xaalis bi génn ñun nañ ko gëstu parce que xaalis bi kenn moomu ko football bay ko moom kese mais journalistes yi war a war a enquêter ci loolu aussi est-ce que du ñoom la ñuy tànn pour ñii la ñuy yóbbu non loolu loolu xoolal ki mooy dema yow ku nekk sa sa kii moo la désigné moo lay sa organe voilà yow la yaay dem xool gëstu mm-hmm. nee naa la am na yoo xam ne mm-hmm. bés bu leeree mm-hmm. xaalis yu génn ay ay ay ay ay ay ay ay ay marché ay nangam. parce que parce que ñoom ñoo ko def sax ñoom man li ma wax waa fédération dama leen ne lenn kese la lenn rek ngeen def. Mhm. ne lépp leex bu lëpp leexee da di sonn. da ngeen di dem toog fee tëdd nelaw. bu leen neexee ngeen dem fu leen neex. waay Cheikh Cheikh doom lu mu wax. waaw waaw Cheikh Diagne Gomis téye laa minam. mais su lépp leeree aussi. est-ce que dinañu lekk li ñu bëgg a lekk. lan ndax lépp xaalis a ko waral tamit. mane su lépp leeree. ñu def lépp mu leer non parce que non euh, c'est que Moussa xam nga man la laa gëm ban type de dirigeant moo war a am léegi tant que defuñu ko waaye dirigeant yoo xam ne Moustapha au mm-hmm. nom de Dieu mm-hmm. amuñu liggéey il ne travaille pas mooy seen liggéey nekk fédération mais mais non am nañu si bari ñoo xam fédération ñu amuñu liggéey ah ma ngoog mm-hmm. waaw boo jëlee ñooñu a ah, dafa mel ni Cheikh Tidiane Gomis amul liggéey liggéeyul fenn ñoo ngi jël ko yóbbu ko fédération c'est vrai. def day réclamer ay per diem. Mm-hmm. lu kii mu noppi. mais mais euh, Cheikh euh, est-ce que li am France mën naa am Sénégal c'est-à-dire que le ministère de sports. Mm envoyé une mission d'audit à la fédération. France lool lool ci lañ loolu lañ nekk temps yi waaw am na ci kii waaye doo dégg li ma la wax. Mm-hmm. amul droit tey yaa ngi ko ba jotara mënul envoyer une mission d'audit à la fédération su ko defee FIFA la. FIFA mais mais lu tax mais tax gouvernement France FIFA mënul leen dara. foofu la euh, bi affaire bi amee. Ah. gars yi journaliste yëpp ñun suñu groupe bi. Ah. ñun loolu lañ doon dañ ne euh, dañ ne non non mais waa lii ban kii la. Euh, fee lu tax ah. FIFA waxul ingérence. oui bu doon Afrique ba sax mu ne ingérence. oui mm. c'est vrai. loolu la ñun ñëpp ñun journal ñun ñëpp loolu la ñu on s'est posé cette question là ne waa mais France. c'est le ministre des sports. oui moom moo dugg ñëw kii na. attaqué kii bi. bu doon fii. tey. Yankhoba Diattara loolu suñu ministre des sports yi. Mhm. dañoo ragal football. mais mais mais si fond bi nga xam moo ko def si fédération moom. am na si droit de envoyer fa mission. voilà boobu comme 14 milliards yi. voilà comme 14 milliards xaalis boobu nag. moom foofu boobu mhm. xaalis boobu. mën nañ utiliser nañ ko utiliser waaw xam naa mhm. bii cour des comptes dina ñëw. Euh, bi di ñëw. moom moom dana ko leeral. xool nu ñu ko utiliser waaw li ñu dugal ci xoo yi. Mhm. <laughs> li ñu dugal ci lii li ñu dugal ci lépp dinañ ko xam. soo rapport bu neex. waaw waaw rapport yee waaw Moussa Ba ñu nga rapport bii. li ñu jox ñoom Koukandé. <laughs> ñoom Koukandé ñoom ñoom ñoom li ñu leen jox oh noonu dëjë xaaral. loolu <laughs> leer laa la wax gis nga non gis nga 14 milliards yii. waaw bés buñ ko leeralee man xoolal man dama leen défier dama ne nañu leeral 14 milliards yi di nga dégg. Mhm. jox nañ ci ab. ab benn ak. benn charlatan. <laughs> benn charlatan boo xam ne gëmloo ne que nañ dem final. régal dañu doon gëmloo Sénégal. gars yi di leen jox rek. billaay ñu leen di jox. wallaay dañuy dem final dañuy jël coupe bi coupe monde. billaay wallaah talla. ñu jox leen. doo dégg lu ma <laughs> monde. waaw coupe du monde looloo yëpp yëpp askan wi. waaw coupe du monde ay xaw moo koy jël. coupe du de sëriñ bi wax eh, bépp sëriñ bu ne mën nga koo jël bu am nga fi. du monde mais mm-hmm. wax loolu la nekk lii. Mm-hmm. tax ba sunu entraîneur demul point de presse. tam ñu ne la tax ba sunu joueur yi demuñu point de presse. xoolal yooyu yëpp ndax sëriñ beneen ko waaw. mystique eh? <laughs> point de presse boobu Aliou Cissé demul. Ah. ay tappale ay feebar yooyu ay tappale la de. mystique a taxaw eh, Aliou Cissé feebarul woon non Cheikh Tidiane non non. man maa ko wax non mënul wax loolu. maa ko wax mënul wax loolu wax naa ko. wax ma ne doo dégg la ma la. mais ñoom eh, fi ñu toll ci ci ci ci. <laughs> ñoom fi ñu toll ci compétition nit ñaa ngi leen di. mën a nax à ce point. doo dégg la ma la. Ah. <laughs> Moussa Ba léegi nii mun nañ ma weddi. mais man non Cheikh euh, Cheikh man dama yaakaaroon ne Sénégal man xaw ma équipe nationale parce que jegewu ma ko ni nga ko jegee. Mhm. mais dama yaakaaroon ne dépassé woon nañ étape boobu. parce que temps yi fi ñoom bokkande. waaw doon kaas. Mhm. naan bu ñu ñëwee regroupement équipe nationale. gars yi mhm. leen di tegal ay pan. ñuy sangu di sangu ba duñ tal sax noppalu. récupérer pour mën a footballer te boobu ñoom ñu ngi jouer dans des clubs professionnels yoo xam ne su match jegee tu ne fais que te reposer mm. mais bu ñu ñëwee Sénégal comme dit Serigne dañuy mel ne ñu ne ci nawetaan après gars yi di ko kaas ba presse bi doon joxe et tout man je pensais que cette époque là moom Sénégal dépassé na ko kuy kuy kuy kuy ñaan wala ngay kii da koy def ailleurs mais pas mu jegee joueur yi wala entraîneur wala comme ça bu la gars yi ñoom buñ la waxee ñoom. liñ doon sangu. liñ doon sangu liñ doon def liñ doon nangu. <laughs> bi coupe d'Afrique bi passé bii bii bii ñu wàcc Matar Ba bari nañu ko ci doon wax naan mataar Ba dafa xam yoon bi waroon nañ ko fee bàyyi. Mm. <laughs> yoonu sangu yi yoonu sangu yi loolu lañ doon wax. loolu la ñu jëm. ba xam yoonu sangu ba léegi mu ngi au ñu <laughs> lu gën a lu gën dañuy dem ba dugal ci diine. ana waa léegi Cheikh gis nga euh, duma ne. xam nga ñaan moom am na. waaw loolu am na ñaan yàlla mu def. am na ñoo xam dañoo am dañuy dañoo am ñaan comme on dit. mais xam tax man euh, tey xam naa ne foofu maa ngi yow ci xam nga tax mbirum xaw ak football souvent nit du ma ci convaincre. ma damaa nekkoon ci nawetaan. damaa bokkoon ci nawetaan ne ci au cœur nawetaan. gis nga faatu boo amee équipe bu baax ku la ñaanal nga gañe mais boo amul équipe bu baax. ku la mënti ñaanal na lay non man loolu laa gëm. waaw yow man yow li nga gëm moom laa gëm. waaw yow mm-hmm. dégg ñun amoon nañ équipe bu tudd bokk jom. après tudd ASC Kër Sëñ Louga tudd nu ko neex. ku nekk ñaan nañ fa. gars dañ dañu daan dóor rek. <laughs> mais ba ñu amee bañ ko fusionné boole ASC yi ni ci quartier boobu. waaw def ko benn tuddee ko pénc mu am doole. bala nga ñëw dóor xam. waaw bala nga ñëw dóor xam. mën na ko ngeen am les meilleurs jours Moussa li ngay wax dëgg la ñaan am na ñaan eh, ñaan. ñaan am na waaye day fekk nga am équipe. nga am équipe bu am doole. Eh. dégg nga. Eh. coupe d'Afrique wallaay ñaanal France ak Argentine jafewul. xoolal xoolal coupe d'Afrique bii. gars yi non dañuy toog sax di lay naan non fédéraux yi dañuy naan non euh, euh, bi ñu ne cëpp euh, ba fi sax. waaw coupe d'Afrique commence dañu ne non non premier. et Algérie la ñuy xon mu toog <laughs> xon bi jàpp na Algérie toog ay de wuy jàpp na. gars yi ne noonu Nigéria na toog. gars yi ne noonu kan Maroc na toog. punkal yëpp. gars yi ne noonu xool nañ leen toog nañu. waaw léegi nag. ñoo fi des ak ndaba yi voilà voilà ñoo ndaba yi léegi nag ati jeex na. <laughs> mais c'est du n'importe quoi dans ce football. dañuy dem ba gëm ba gëm li nga xam ne ndax li wax loo gëm mu gëm loolu. tel tel ko jàpp moom. waaye doo déglu waa. Ah, non Égypte dafa dëgër bopp. waaw dafa dëgër bopp xool nañu najam najam. ñu dem ak moom fii kii Syrie. te foofu foofu Salah moom day kaba di julli dégg boobu nag moom dañuy am da waaye ñëpp la ñu xoolal ñëpp la pays organisateur gars ne Cameroun. day toog. Sadio yi ne kii day toog. ñu ma man pour man eh, Gomis man pour man Gomis. Euh. non non. day toog sëñ bi nee day toog. ma ne ah loolu la ñu la ñu ah waxoon nañ ne ko jeex na yoon bi leer na dañuy génne coupe d'Afrique kon kay yow li ñu li ñuy frais ci xon kay war naa war naa mën a toll ci ay millions parce que man dama yaakaaroon ne dañuy euh, ful euh, kii bi rek. équipe nationale rek la ñuy def. la ñuy xoo waaw comme dañuy liggéey ñeneen ñi. xaalis war naa mën a bari xam nga lan moo ci mën dans tout ça. uy <laughs> ma bu leen sëriñ bi ne leen euh, non non andi leen xam <laughs> nga gars yi